di ñaanal Cheikh Seyd al Maxtaar sunu boroom yàggal ko fi dolli ko kàttan ba mu mottali mbooleem ay naalam ak ay yéeneem ci liggéeyal xaadimu rasuul di ko ñaanal mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa gi yépp ak kilifa diine yépp ak jullit yépp ak taalibe yi di ziyaare bu baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nii nga xam ne moo woote bis bu mag bu tedd bii nu di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi te yàggal kilifaam ci kanamam ba yéene yi mu am yépp ci liggéeyal ko maamam Cheikh Ahmadou Bamba mu defe ko ni mu ko bëggee ci barke sañ Touba di jaajëfal bu baax sëñ Jili Abdul Xaadir ci waxtaan moom solo bi nga xam ne ñi fi nekk di ko dégg ñépp jariñoo nañu ko ab soññee ngi ci boo xam ne dana tax nu gën a daw xiirtalu ci xasaayid yi kon yàlla na ko yàlla jàppale te taxawu ko bu baax a baax sëriñ Ibrahima Gueye noo ngi teg ci yow nuyoo bokk yi nga xam ne ñoo ànd sëriñ bi liggéey bi ndax jokkaloo gi sëriñ bi doxale woon sunu diggante te lépp nga matal ko te rafetal ko kon nuy noo ngi jëlaat lépp tegaat ko sa loxo di ñaan yàlla it mu doon laa jàppale taxawu la bu baax ba liggéey bi yëpp nga defe ko ni nga ko bëggee maa ngi beral ab nuyoo sama jawriñ sëñ Aliou Thioum di ko ñaanal yàlla it euh, liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba lim ci bëgg yàlla na ko ci sunu boroom defal ko ko lim bëgg ci sëriñ bi yàlla na ko am li sëñ bi bëgg ci moom it yàlla na am ci barke Xaadimu Rasuul noo ngi sant mbokk yi fi nekk yëpp ak mboolem kilifa yëpp tomb bii nu Serigne bi wax nu waxtaane ko mu jëm ci ak taalibe bi. dafay mel ni nii sëriñ bi doxalee mbir mi dafa yéeme lool ndax bu tànnee ngëneelul xasaayid yi ngir ñu waxtaane ko mu tànn tomb ab taalibe loolu dafa mel ni dafa tànn rek wut ndab loo xam ne dañu ko defar ba mu noppi lépp di ay xéewal mu wax nag yoon wu ñuy jaar ngir mën a xéewlu ci xéewal googee loolu mooy diggante ñaari tomb yi mu tànn ndax bu xéewal tegee fi sa kanam te xamuloo noo cay xéewloo day mel ni loolu dana dana jafe kon nag te yoon wanu ci mën a yóbbu loola moo tudd ak taalibe li tax ñu di ko waxtaane nag mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne la yati ala nas zamanun yakunu alxaabilu fihi ala diini kal xaabili ala jamra yonent bi salaa salaam dafa wax ne jamono dana ñëw sa diine day mel ni nëpp xalu sawara nga xam ne xalu sawara ci teen ak yacca ne nee na jamono dana ñëw noonu muy mel ni la téye sa diine di mel loola it mooy kon jamono dana ñëw joo xam ne ak taalibe dana jafe lool yonente bi it sallallahu alayhi wa waxoon ne euh, jamono dana ñëw joo xam ne nit ñi dañuy dajji sunna teg ko ne ba ba balaa saa taxaw mu yomal xiyaama nit dana nekk di jëfe sunna ñu ne ko yaa ngi jëfe bidaa nit di jëfe bidaa ñu ne ko yaa ngi jëfe sunna loola it mooy fi nu egg mooy jamono dana yegg foo xam ne danga gis nit koo xam ne day dox ci ak taalibe waaye dañuy wax ne du ab taalibe nga gis nit koo xam ne it doxul ci ak ak taalibe ba noppi ñu seereel ko ne moom de ab taalibe la kon ngir loola nag nanu delluwaat ci ki nga xam ne moo taxawaloon yoon wi muy Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne dafa wax ne yoon wi mu sos mi yoonu murid yoon la woo xam ne yoonu tasawuf la wuy wommat ab jaam di ko jëme ci boroomam ci yan fondement la ko teg bu ñu delloo ci mbindam mel na ni bokk na ci fukki laaj ak juróom-ñett yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko Serigne Touba ca Ndar bokkoon na ci laaj bu mu ko laaj sa yoon wii ci lan nga ko sos Sëriñ Tuubaa ba muy tontu dafa wax ne ussu tariqati al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiq wal ixsaanu bi tasawuf dana yoon wi day dama ko teg ci ñett gëm yàlla jëfe sa diine ak rafetal ko ñi yoon wi dafa sukkandikoo ci ñeent xam-xam liggéey jaamu yàlla teggin yuñ gërëm muy yoon woo xam ne it baidatun ani tafrit wal ifraat dafa sori ëppal ak yéesal di yoon woo xam ne it wu sori ak bokkaale yàlla la ak weddi ko ndax lépp dafay dox ci tawxiid kon mu mel ni it ginnaaw moom loolu mooy jëmmi al iraada bi di al muridiya bi aji ki ciy tàbbi it nekk ay xaaj almurid almuridu saadiq almuridu saalik almuridul waasit jëmmi aji soobu ji muy gëbi bi dañuy wax ne almurid huwa almuminu almuslimu almuxsinu alladi laa yuridu siwa mardatillah fi kulli aqwalihi wa afaalihi ab murid mooy aji ku gëm yàlla mënuloo nekk ab murid te nekkoo aji gëm wala nga nekk nga nekk ab jullit nekk aji koy rafetal te loolu moo delluwaat ci ñett yi sëñ bi wax ne ci la tënk yoon wi muy iman islaam ihsaan kon faaw nga nekk mu'min nekk muslim nekk muhsin Sëriñ Tuubaa wax ne nag ñetti melo yii kum dajewul fi fi yow maanaam boo nekkul mu'min nekkoo muslim nekkoo muhsin nee na jamono bi nga ma wut see ngir bëgg ànd ak man ca saasa la yàlla dàq ba nga sori ma nga xam ne ku ko doonul man ngaa jàpp ne yaag sëñ bi yéen a ànd waaye sëñ bi moom nee na sori nga ma boo delloo ca wakkaana xaqan alayna nasrul muminin ma ngay wax ne adhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muminan ya za zaman adhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu musliman ya za zaman adhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muhsinan ya za zaman kon al muridu wal muminu al muslimu al muhsin waaye alladi laa wa murid mooy koo xam ne lépp lu muy jóg di wut ngërëmul yàlla rek la cay sakku innal murida laa yuridu abada xayra ridar rahmani ay suqasada Sëriñ Tuubaa nee na ab murit fu mën a jëm genn bëgg la war a am lenn war a nekk yitteem te mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla nag day loo xam ne ab saay-saay du ko am Sëriñ Tuubaa dafa am ku ma sa ñëw fi moom na ko Mbàkke damaa bëgg nga wax ma loo may sant ma di la ko liggéeyal sëñ bi na ko boo dee ma ñaanal yàlla te boo may ñaanal yàlla dee ko waxee nii del wax na yow yàlla suñu borom sa jaam bii ñuy wax Ahmadou Bamba nee daa bëgg nga def ko noo bëgg sab jaam mel ni ndax yow mën ngaa bëgg a mel nen fekk ni nga bëgg a mel bokkul ak ni nga war a mel wala noonu yàlla bëgg ni sëñ bi ne ko nag ma ñaanal yàlla ne ko sa jaam bii nuy wax Ahmadou Bamba nee daa bëgg nga def ko noo noo bëgg sab jaam mel ni daal di ko ca tegal na ko baa boo leen di ñaan yàlla da ngeen ko ñaan lu mu dul mayib saay mu ne teg mu ne ko mooy ngërëmam lu dul ngërëmul yàlla ab saay-saay dana ko am ngërëmul yàlla rek la ab saay-saay du am moo tax sëñ Tuubaa na ab murit nag ngërëmul yàlla rek war a mut daal di wax ne yéen ñi maa ngi leen di yéen nabahtukum maan ala ba bada lii rek al ara ba mabada nee na na ngeen xam na ngeen yeewu ne jëkk ngeen di gis xéewal yi daje fi man ak ngërëmul yàlla lii ab coonaa ko jiitu Sëriñ Tuubaa de bu nee la bëgg na ñetti dërëm maanaam naar bu ñuy wax Asan Chérif bindal ko ñetti téere ca paataar sëñ Tuubaa war koo fay ñetti dërëm toog bind ab kaamil ba mu yegg maanaam at mi mu ko war a fayee bi mu ñëwee sëñ bi faggandikuwul ñetti dërëm yooyu sëñ bi toog bind ab kaamil ànd ak ñaari taalibeem ya maam Cerno Birahim ak Seex Masamba Jóob Saam war diggante Kajoor ak Bawal di jaay téere bi ngir buñ ko jëndee mu fay naar bi kenn jëndu téere bi ba noppi boole ci di reetaan Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne la sëñ Tuubaa toll na jamono bëgg ñett dërëm mënu ko am téere bii di bidaayatul hidaaya bu imaamul Ghazali nga xam ne moom la def mu layin ak mu nawir nee na bi mu koy wecciku ab dërëm lañ ko ko jaayee moom sëñ Tuubaa waaye nee na amutoon dërëm ba mbubbam la joxe ngir jot ci téere boobu kon bëgg na ab téere joxe mbubbam ngir ab dërëm bëgg naa fay bor mënu koo fay di wër réew mi di jaayu téereem te kenn jënd ko moo tax mu ne kon jëkk ngeen di gis ngërëmul yàlla li daje fi man na ngeen xam ne ay coonaa ko jut kon murit war naa ñeme ñàkk war naa ngemee tumuranke war naa ngemee xiif war naa ngemee tuuma war naa ngemee noon ndax ak noflaay mënee su ko am lu may ginnaaw ab am na melo yooyu faw mu daje ci murit bi sëñ bi dafa tënk lu yéeme dafa wax ne sifatu sadiqin muridin bi ixtisaar arbaatu nadamtuha xaw faxtiraar boobu moo jëkk fa kullu man jamaa hadihi sifaat min al muridina fa yudriku siqaat moo mujj dafa wax ne melo yu murit dama ko yaxal way ko nos ko muy ñeent ngir bañ ak waru kon sëñ bi xamoon na ne waru dana am mu ne fa kullu man jamaa nag ku boole waxul nga nga jàpp ñaar bàyyi ñaar waxul nga jàpp ñett bàyyi benn fa kullu man jamaa dana ku bëgg a jot gaaña bokk ci ñu wér ñett bokk ca murid saadix ya faaw nga dajale ñeent yépp lu tax mu ne damay bañ ko waru dafa am bis mu ubbi ci njaareem yam ci Cheikh Massamba Mbacké na ko ma sàmba mu ne ko mbakke mu ne ko sama boroom wan na ma sama ëllëgi jamono wan na ma li koy yàq waaye jox na ma lu koy fekk ba fekk naa ko maanaam nga xam ne kenn mënta yàqal Cheikh Ahmadou Bamba ndax fi àdduna di yem ëllëg ak li ciy xew lépp yàlla xamal na ko ko wax ko li fiy yàq ba noppi jox ko jumtukaay yu mu ko mën a fege mu ne damay bañ na ngeen waru moo tax ñeent yi daal ku ca sukkandiku tamit dëgg ci yow te wér faaw nga bokk ca gaa yi bu ca jëkk as siddiqu fi mahabbati cheikh abad mooy dëggal ci bëgg sëñ bi kon sëñ Tuubaa bëgg la jëkk jëkk tànn lu tax dañuy wax ne almahabatu hiya su taa ak cofeel mooy fondement ak topp maanaam bu fekkee ne bëgg ngaa tabax dara faw nga defal ko fondement bu dëgër ñu ne nag ak cofeel moo jëkk ci lépp lu nit di wut ci sëñ bi ngir di ko sakk sëñ nee na bu nu jëloon asamaan ak suuf def ko lépp wurus ak or ak xaalis na la jëlal nee na mu def ci sa xol nga bëgg sa sëriñ moo ko gën ci yow fal xubbu xayru ma li shaxsin uhibba lépp loo mën a am ci kaw suuf bëgg a ko gën lu tax bëgg googu Serigne Touba borom xam-xam yi dañuy wax ne bëgg nitu yàlla tegtal la ci bëgg yàlla sa borom ñu ne ngir ku yàlla nëmmul ci yow nga texe du tàbbal ci sa xol nga bëgg nitu yàlla am ko wax ne mboolem jaamu yàlla yépp kenn jaamuwul yàlla lu toll ni bëgg nitu yàlla kenn jaamuwul yàlla lu toll ni bëgg nitu yàlla kon bëgg nitu yàlla tegtal la ci bëgg yàlla sa borom ñu ne moo jiitu boo nee nan lay bëggee sëñ bi da ngay dellu ci ni Cheikh Ahmadou Bamba bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alal doom ay taalibe ay dëkk deretam jëmmam lépp da ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir cofeel gi mu am ci moom mahat mahabbati yal muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa lahu abdan xadima lahu muskaana li sanada daawul nungu alal bëggul doom bëgguli taalibi ngir rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bu fekkoon ne yonent bi dafa am bor bu ñu koy fayu ku romb sama doom yóbbaaleel ku romb sama taalibi yóbbaaleel bu fa yooyu yëpp nekkut sama deret bu ca sosee jël leen sama deret fayee ko borub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent ba yegg ci wax ne man de bu ma séenoon Muhammadu Rasulullaah sallallaahu alayhi wa sallam ma ànd moom ñuy dox mu yëkkati ndëggul tànkam la bëgg koo teg ci dégg sëñ Tuubaa nee na du ma dandale bu jiit jëmoon ci Rasulullaah it bëgg a fett tànkub Rasulullaah wala jaan bëgg a matt tànkub Rasulullaah sëñ Tuubaa nee na du ma rey jaan ja du ma dàq jiit ja ñu ne nooy def mu ne xadil wiqaayatu li rijlil mujtaba an shawkatin wa ma yudaha aqraba bu ne jëyi tànkam bëgg koo teg ci dégg gi sama benn lex bii lay tëral ci dégg gi rasul lay teg tànkam ca beneen wet ga ca kaw bu ko jiit bëggoon a fett ba jan bu ko matit lex bii lay tëral kon xaddil wi xaayit li rijlil mujj taba an shawkatin ma yu daha aqraba koo xam ne nee na bu rasul lay bëggoon a joggi dégg saab tànk lay saab lex lay tëral rasul lay salaahu salaam joggi ci bëgg googu bëgg alayhi salaat salaam bëggul doom bi mu nekkee ci géej gi gi tawat sëñ Modou Moustapha sëriñ Fadilu Cheikh Mouhamad Lamine Baara sa guy Goraa nga xam ne booba ak mbay dee la maam Thierno amul fu mu dëkk ak njabootu sëñ Tuubaa gi daana fanaan cim sàq ngir ñàkk fu dëkk nga xam ne keroog bi sëñ Modou Sa tawatee sëñ Fallou tawat Cheikh Mouhamad Lamine Baara tawat borom daaru dafa julli ñaar rakk ñaan yàlla na ko sama kilifa gu baax gi bu naree ñëw ma koy laaxal na ko njaboot gi kenn fàttu na na sëñ mu daaw Balla mii di sama taw jiitu wala soxna Faati Isa mi topp ci wala man mii ma dem waaye bu sañ Tuubaa ñëw mukk ma koy laaxal na ko kenn wàcc ko na ci njaboot bi bi sañ Tuubaa yëgee ne sëñ Modou Moussa dafa tawat sëñ Fallou tawat sëñ Baara tawat sëñ Tuubaa ñaanut sëñ Modou Moussa wér ñaanul sëñ Fallou wér ñaanul sëñ Baara wér ngir bëgg rasulullahi dafa wax ne Muhammadul Mustafa bi yeddi rasulullahi fal yaqali daa macha bi Modou Moustapha de man nga cay loxo yonente bi salaahu salaam lu tawat ji mën na ko def ci Moustapha daan fallu moom yàlla laa ko bataleel Mouhamadou Lamine bi yeddil qur'aani fal yafalida macha bi Mouhamadou Lamine baara nag alquran laa ko bataleel lu tawat ji mën na ko def ci moom nga xam ne ñaanul ngir jenn doomu mbir dana kii Seex Rasulaay laa ko jox kii yàlla laa ko jox kii ma jox ko ah, alquranul karim loolu mooy bëgg kon bëgg googu mu bëgg yonente bi moo tax benn bindkat nee na ko adaaba qalbuka xubbul xibbi ya sanada fa xubba xibbika yamhu xubbakal waladan kon a a lépp ndax ba jaxat nee ne sëriñ bi yaa gën barab gënu nit ko mooy ci yow mucc am mboole mébél yi asal loo bëgg te bëgg caa jot rek sëñ bee ci gën a gaaw kon boobu moo jëkk ci melaw murit ba ca topp mooy imsaalu amri ay suwarat mooy foo déggee ndigal jóg rapport bi boole taalibe bi ak sëñ bi mooy ndigal sëriñ Bay Jaxate nee na lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fob njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ko koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam kon taalibe bi bu doon bokk ak sëñ bi benn ndab di tëdd ci néeg sëñ bi sëñ bi sibbi mbubam di ko jox te bu ko digalee du def bu ko teree du ko bàyyi du ko jariñ dara li wolof njaay di wax ne daqaar du woom ku ko mëccul mooy ndigal ku ko jëfewut du la jariñ li tax taalibe yu baree bari sama classe gi seenu dox yeex boo demoon ci ab docteur mu la bindal la ordinance nga dem ci pharmacie bi jënd ko mu ne la waaye nanga nga bàyyi ndawalu guddi na nga bàyyi sukkar na nga bàyyi na nga bàyyi na nga bàyyi tere la yu bari nga boole naan garab yi ba noppi te bàyyiwoo li muy tere doo wér bari na ñoo xam ne ñu ngi góor góorgóorlu di ijjanti ci xasaayid yi di jàngantu alxuraan di jéem a jaamu waaye nag léegi-léegi yenn tere dañ ko dul bàyyi loolu mooy tax yegg jafe nga naan moo ne waxoon nañ ne ku jàpp nangam dem ku jàpp nangam dem waaye di naani garab ngir wér ba noppi tey naan lu koy yokk du tax a kon ndigal mooy tax taalibe bi yegg fa mu jëm ba ca topp mooy tarkul ixtiraat mutlaqan wala bat na ali fi a rawoon te lu baree ngoog mooy bàyyi dii ngat sëñ bi doon ko ne da ngaa wéet ne ci sa néeg di nelaw yow képp di wéet di dii ngat sëñ bi yaa ngi yàqu soxna fat ja muy taawub sëriñ tubaa nga xam ne Serigne tubaa moo seere ne murid sadiq la benn naar moo ne ko gis naa soxna Fatima Serigne Touba ne ko innaha muridatun sadiqa Serigne Touba ne soxna fat ja murid sadiq la soxna fat ja nee ab sëriñ ab seetu la ab seetu kenn du xees mu lay ñuulal kenn du ñuul mu xeesal saa yoo toogee di yëg ne sëñ bi sikka ngi ci moom damal defaru ji seytaanee ngi lay yàqal al ixtiraat moo tax damaa waxoon ne juróom benn day yàq ak murit te taalibe yu néew ñoo ci mucc léegi sëñ bi daa na sëñ bi na lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bee kipput loolu day yàq ak murit te loolu lu baree bari la sëñ bi daa waroon na sëñ bi na lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bee kipput bu sëñ bi noppee nga ne daa war a wax sëñ bi moom ci boppam wax la war a def sëñ bi wax nga ne daa war a noppi lépp ak sëñ bi ndax moo wax loo jiw man ne murit laa waaye lu ma enracié wut sëñ bi daal daal di cëppatu loolu day yàq ak murit te ci te law bi baax leen lañ wax sax waxuñu la ñu koy gaaram placé ci saal yi ne ci dëri sëriñ yi déedéet waxuñu ne ci saal yow boo ne wéetoon sa néeg képp ci sa mbalaan di sangu di xalam loolu yaa ngi yàqu kon ab taalibe bi du dee ñett ab sëriñ ba ca topp mooy wa maahu salabul ixtiyaar li zannihi bi la inkaar ab taalibi du tànnal boppam aw yiw newul ci li nga tànn waaye aw yiw ma nga ca lañ la tànnal kon murit bi day bàyyee boppam ak sëriñ bi sëñ Tuubaa mag ñi daanañ ko fekk ba Céyeen daanañ ko fekk ba gànnaar njaaréem lan la ñuy yónnee laaj turu doom ñoom daawu ñu def dara te amuñu ndigal sëñ Tuubaa nag fukk lu man jamaa haadihi sifaat ku góor góorlu ba yii daje ci yow faaw nga jot gaañ kon boo bëggee sëñ bi dangay bëgg léppi sëñ bi boo bëggee sëñ lépp léppi sëñ bi ngay bëgg ndax sëñ Tuubaa bi mu bëggee yonent bi salaahu salaam lépp yonent bi la bëgg day def tawasul ci ay doomam di ko def ci ay sëtam di ko def ci ay dëkkam di ko def ci ay soxnaam di ko def ci ay saxaabaam léppam ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu boo bëggee sëñ Tuubaa léppi sëñ Tuubaa ngay bëgg doo doo xajale doo doo doo doo doo diingat doo weddi sëñ Tuubaa na ab murit day mel ni néew ab néew bun bun tëral di ko sang du wax ki may sang nii la may sange wala nee la may sange ab murit yi sëñ Tuubaa nee na ida arada al murid al intifaa yaxtaqidu bi anna cheyqahu waasilu baynahu bayna na sëñ Tuubaa nee na ab murit bu naree jariñu day fas ci xolam ne sëriñam mooy ki dox digganteem ak boroomam daan na sëriñam du ko digal lu mooy lu ko yàlla digal du ko teree lu mooy lu ko yàlla tere foofu sëñ bi daal di ñuy wax ne képp ku leen di tegtal yàlla képp ku leen di tegtal yàlla na ngeen ko bëgg na ngeen ko topp ku leen di won lu dul yàlla na ngeen ko daw woon ko ginnaaw wa man ala gayri ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka sëñ Tuubaa nee na képp ku lay joxoñ lu dul yàlla won ko ginnaaw ndax da lay réerloo sëriñ Tuubaa wax ne ab sëriñ it day am nu muy mel ci lu gàtt la ko dëng dane fa cheikh laa yuxaalifu mu shafaa fa man naha amru mu rabin tafaa sëñ Tuubaa nee na ab sëriñ foo ko fekk du juuyoo ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy la yàlla digle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi ko ca lay nekk lam tere da koy bàyyi mu ne boo ko amee nag bu la digalee na nga def bu la teree nanga nga bàyyi sëriñ bi daal di waxaat ne murit bi bëgg a yegg ci yàlla boromam it nga xam ne moo suubu di dem dafa am ñetti gànnaay yu mu a yóbbaloo mooy faw mu aliment dund bu wóor mu muy dund ndax ak màggam ak dox jëm ci yàlla am gaaw waaye faw faw mu am ab yóbbal waaye faw it ah, mu am gànnaay gu muy yor ndax yoon moom jëm sëñ Tuubaa wax ne xayru taamin li muridi saliki dawaa mu di jalali malik sëñ Tuubaa ne na yoon wi gën ci ab murid mu yegg ci yàlla boroomam nee na mooy nay saxo tudd yàlla mooy jàng alquran ak xasaayid ndax xasaayid yi alquran la xasaayid yi tudd yàlla la kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat allahu arshada qilaami wal midaad kon boo dee jàng xasida yaa ngi def dikkër yaa ngi tudd yàlla sëñ Tuubaa ne kon na ngay saxoo tudd yàlla kon murit dangay ngay dégg ne xasida ak alquran moo war a riir ci noppam waaye ab ab murit du wétti li ko musique musique day reyu xol sëñ Tuubaa dund bi tax perantal bu fer ba noppi di lekk day xiiboon te mën naa faatu musique day reyu xol sa xol jàgg doo jajju doo waaru doo mel nen moo tax sëñ Tuubaa nee ñam bi gën xayru taami li murid di salik ñam bi gën ci murid bi bëgg a ci yàlla dawaa mu dikri sil jalaali malik soxoo tudd yàlla loo daq jàng alxuraan daq jàng kasida soxol gën a set ngay gën a jege yàlla di jege gën a jege sëñ bi loo daq déglu musique daq dégluy caaxaan di gën a sori yàlla di gën a sori sëñ bi mu ne ama silaahu faqul sayf waran bihi am xam habla tama ki bëgg a dox jëm ci àllit faaw mu yor gànnaay sëñ Tuubaa nee na géesi ji ab murid yor bu bëggee yegg mooy sàmm ab murid day sàmm sàmm ci lu néew ak ci lu bari ab murit du sàcc lan mooy sàcc mooy wane ci kaw sëñ bi te sa biir lépp diglandam bu nit ñi dajee nga yor sa dollu di ming te boo wéetee di seetaan lu jaaduwul bu nit ñi toogee ngay rocc rocc li per nan ëskey te boo wéetee di fen ak a jëw loolu du melow murit sëñ Tuubaa dana duumu ala ibadatil ilahi abada fi kulli ma xad ixtafa aw xad bada ni nga mel daal neel nan ñi ñëpp xam ne nii nga mel boo wéetee it melal noonu waaye wane ci kaw ba ñëpp na sawaay saadix la te fekk biir ga dara jagut kooku ab sàcc la da sàmm moo tax léegi la nga dégg ku ku ku génn ci télévision bi man murit laa sëñ Bamba rek laa gëm Baay Faal laa damay dóor waar létt boppam bënni noppam xeesal fecc pàkkar ñi ko sol melow murit sol déguisement Baay Faal solub kasket takk ab jéngal fenn fu rek ngay nuru murit tey feccal ay jigéen ak a feccali góor te naan sëñ Tuubaa laa yaakaar man sëñ Bamba laa gëm sëñ Tuubaa nee na eh, yow mi ma yaakaar li ma la jëkk a dénk bàyyil lu xaraam ak lu ñu sib fi ne bul sëñ Tuubaa bi ko sëñ Abdou Xaadir di natt léegi kuy jàng xasida sàngam sëñ Tuubaa nee na maa la waralul nangam ku jàng xasida sàngam maa la waralul nangam nga kontaan dëgg dégg ko sëñ Tuubaa nag moo waxaat ne wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahli li wacci rabbiya an tatruku muharraman wa ma kuli li wacci rabbikum kullu mushrikeen nee na ku aju ci man li ma la dénk bàyyi lu xaraam bàyyi lu nga fecc daa xaraam carte daa xaraam lamb daa xaraam lépp daa xaraam jëm ci sëñ bay dëgg ku tal na ne ci leneen sëñ bay la digal na la bàyyi ko man alima al jamia fal yufaariqa wa man biha jahila fal yurafiqa sëñ Tuubaa nee na boo ko xamut demal wuti ko la ko jàngal ndax bari na koo xam ne waxtu wi daaw xamul lan mooy Facebook xamul nu ñuy connecté mais góorgóorlu na ba ren am na portable mën naa connecté di jënd crédit na nga ca góorgóorloo nag ba mën a connecté góorgóorlu ba xam li la sëñ bi digal ak lim la teg téeméeri junni na nuuru daari nga jàng ko fanweeri junni jaalibatu maraaxi bi nga jàng ko te xamoo lu sëñ bi digleeg li muy tere sëñ Tuubaa mi bind nuuru daari bind jaalibatu bi moo bind mu nay naawiru sudur moo bind mu layin moo bind jawaru nafis moo bind masaalikul jinaan moo bind moo bind moo bind kon murit bi nay jàng xasaayit xam li sëñ bi diglee te moytu la muy tere sëñ bi nee na ko aju ci man loolu laa la dénk daa di wax ne moom ah, ah. Sëriñ li mu wax na mboolem kuy woote sëñ Tuubaa nee na wa man tawajjat annaasu ilayhi wa tawajjahu ila nafsi aw ila anfusihim dafaahum rabbu naas ila naari lati waquudaha naasu wal hijaara sëñ Tuubaa nee na képp ku nit ñi topp na la yabal te néewoo leen yàllaa ngee lu woon lu may nga leen maa ngi baa nga ne leen yéen yéen a ngi nii sëñ Tuubaa nee na yàlla dana leen boole wam ma tabbal sawara kon ñi ni topp riir méeg rëg-rëg yéeg rëgëj-rëgëj ji ak ambiance bi ci yoon wi te kiy wamati xam fu mu jëm ñi muy womat xam fu mu leen jëmee sëñ Tuubaa nee na woote yi bari na ku ne naan maa yegg ak maa kose ku yegg mooy ku topp yàlla ku toppul yàlla yëggu kon ñu jàllale na di door a ñëw ci soññee bi ñu war a soññee ci kër gi bismillah bi nga xam ne kon tomb bi sëñ bi tànnoon ngir wax ne nu waxtaane ci ak taali bi ngir yeesal yoon wi nga xam ne ci lañ mën a jaar ba li ñuy sàkk lu nekk ñu mën koo ñu mën ko am sëriñ bi dafa wax ne ak taalibe bi bokk na ca mooy bu cofeel amee liggéey am addiya tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyat gis nga ñaar dugal tàbbal benn bi ci digg bi xidma ak hadiya def mahaba ci digg bi liggéey bëgg a koy wommat lu tax daani li iqdaami nabi xubbu daati kon xit ma mënta mukk te maxaba amut kon saa yu cofeel dëggoo rek liggéey daal di yomb waaye bu cofeel amee liggéey am joxe cay topp muy hadiya kon dangay fexe ba base bi di di di di ak bëgg jëf joxe sëñ Moussa Ka ne na amaana ku ñu naan muridun saadixun te fekk kooko mooy maridun saadixun day bay di lekk du joxe hidaaya kooko mooy murid buy sàcc wóor na gaaya bu nee murit mu gaaw ne mbakke bal la te xam ne moos du bu nee murit mu gaaw ne mbakke bal la te xam ne moos du wuy ji wootab yàlla bari nañu yoon wi lu woote ñu ñëw ku woote ñu ñëw pësijëf beeg mbub mu rëy meeg yëpp waaye duñu weesu jawrin maa ngi sa ginnaaw de fasaale ak ëskey kepp taxul dara sotti ëskey ak maa ngi fasaale maa ngi sa ginnaaw <laughs> loolu taxul dara sotti yoon wi yoonu jëf la bu nit jëfee rek ak njàmbaara mën a feeñ kon murit dëgg yombul la yombay nga wax ne murit dëgg laa te doo am murit sëriñ mbakki Buso mu baax ma radiyallaahu taala nee na daa mas di bindal sëñ Tuubaa leetar jëme ko ci kilifa gu mag ne ba ma ne ilaa muridin saadiqin sëñ bi ne ma yaa ko seere te léegi ñi la dàq caaxaan ñoom lañ gën a mën a tuddee ak murid kon sëñ bi murid saadix mbir la moo xam ne tudd ko daal bari nay turandoo waaye néew na ngir nit nekk ca sëñ Tuba seereel na ko koo xam ne bi mu koy seereel murid googu ñaari way juróomi ngi toog Cheikh Issa Dieng ngi toog Cheikh Ibrahima Fall ngi toog muy sëñ Baara Dieng sëñ Tuba di wargal boppam xel lib kaas daan na ko jàpp sëñ Baara jenn na ko yow am Mouhamadou Lamine yow mi di murit kon loola wane na ne ak murit mooy jariñ nit te way juróom woowu Cheikh sa Dieng daa toog fi sëñ Tuubaa ba yàgg mu ne ko Mbàkke yow de da ngaa nuru yonent bi ba nuru ko tur yu bari daam Mbàkke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ak yaakaari jaam ñeeg borom tey ak ëllëg ak lim ba yàggal na ko waaye wóor na ma ne tur yooyu li muy bari bari kenn du la ko wooy yowmal xiyaam sa turu biir wi ñu lay wooye yowmal laa bëgg nga wax ma sëñ Tuubaa ne ko Issa Diagne jógal foofu ana ku ne la am naa turu biir jógal foofu Cheikh Issa dox juróom-ñaari jéego sëñ bi woo ko mu ñu mën ko loo ciy jublu biig biig rek sëñ Sidi Naar Diagne nettaliwaat na ma ko maa ngi moom ci biir sala te sëñ Sidi Jaar Naar Diagne nee na ma sëñ Baara Diagne ma ko nettali ca Ndakaaru nee na sëñ bi ne ko loo jublu mu ne ko du ma ci fal kenn du ci folli kenn mu ne ko ba kenn du ko xam mu ne ko Mouhamadou Lamine Diagne mii di sama taaw sëñ bi ne ko jegesil Cheikh Issa jege sëñ Tuubaa tofli ko ci daan na ko tur woowu ku dul yàlla ak rasulullahi xamoo ko moom lañ ma woowee yomal xiyam daan na ko tur woowu nag ku ma ci woo doon ko ne barsàq laa nekk danaa la wuy si ca saa te ku ko xam yaa ëpp juróom-ñaar fukki junni wala yu kattan turu biiru Cheikh Ahmadou Bamba kon loolu kon bu nu ko amee bëgg a liggéeyee sëñ bi day wone ne sëñ Tuubaa moom du yii du ñii du ñee du ñële loolu lool pour mu leer la léegi nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mii dafa am taxawaay bu rëy bu mu am waa mbokk yi maa ngi laaj benn jat benn laaj daaray kaamil fan la am ci àdduna ah ah képp rek dong kon ma ñëw këru xasiida foo leen ko dégg ci àdduna Hmm? ku yàlla taw féexale mu jëkk koo wax ci yoonu murid Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo ko jëkk wax ci yoonu murid moom Cheikh Abdou Lahad yi mii moo ko jëkk wax ci yoonu murid loolu moom jaglee mam ni juróom-ñaari sooro doona jagle ci Cheikh Sidi Mokhtar sëñ Tuubaa dafa ci nuuru daari ni baat bopp saa yoo ko lambe gaay bi fekk ko ci maa salaamin li yaquudu mufahima dawil gila wa nukri xaqan afhama sëñ Tuubaa ne na jamono bu nekk yàlla damay womatal kuy wedam loo ñi may di ngat ak di ma bañ bët bu set da koy wommat se saa yu gaa yi tàmbalee karang-karang rek mu andi mbër dóor ci seen kaw ñu ne soluñ bala ñoo jóg bay faxasuwaat mu andi mel ne mun a tuyu ñu ne soluñ bala ngaa jóg mun a soluñ maa salaami li yaquudu mu xema dawil xilaa wa nukuri xaqan ak xamul xanaa nun ñiy toog fi kenn ku ne am na yéene tabaxal Cheikh Ahmadou Bamba kër xanaa ab murid lu néew néew kàttan moom bëgg na gaal gu mu def xasida gaalu xasida kooku bu amoon doole yi néegum xasida tabax ko de kër taxut muy wax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kër gii mu woote tuuba néewul doomam a koy donn de néewul ab sëtam de néewul jarbaatam de ci patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba la bokk comme moom daaray Kamil moom jumaa ja moom murid yi moo koy moom muy Cheikh Ahmadou Bamba kenn du ko moom kenn du moom waaw kon ma bëgg nag waxaguma dara waaye dama bëgg ñu dajaleel ma fii ba noppi sëñ ba sëñ euh, Abdou Ndiaye mu baax mii jaaribatu maraaxib kenn ku ne jël contact am ku man saako ciment def liibaru filifeer ku ko man sëñ Abdou sant lu ko nag ndax moom tàmbali na xaarut kenn bu dee jaay oto ma nga ca bu dee jaay nangama ma nga ca xaarut kenn waaye ndaje mu mel nii am na ñu ami bakkaar am ñoom la ñu lijjanti sottiwul ku bëgg sa mbir rek la joxeel nañ jaayante ba noppi balaa dara xew. te turandoo mu am tawféex daaree kaamil. waaw te turandoom Cheikh Abdou Lahad kat moo am tawféex yi defar daaree kaamil kon nuy nan bokk ci tawféex jooju. day day wéy ba tay day wéy ba day wéy ba faw Cheikh Abdou Lahad woote woon daaree kaamil Cheikh Abdou Lahad Mbacké wootee nan jaayante ku mën tonu ciment na ko jaayante ku mën téeméeri ton jaayanteel ku mën benn saaku ciment dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëddu Bamba maanaam ku àndul ak sëñ Bay Jaxate ko wax nee na ku àndul ak moom dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëddu Bamba daan na moo sedd ab xol te dal am xel te buuri gëtit te doy sëriñ sëpp ak yéefari kenn yëpp moo dib sëriñ dëgg moo dib sang kenn gisagul ceemam ci suuf si la muy dox yàlla sompalu ko alhamdulillahi nun am nañ sëriñ bu nu doy bu nuy fegal bépp lépp loo xam ne bëggunu ko kooku mënu ciy dimbale wasalaamaaleykum wa rahmatullah